aus billahi mina sheytaani rajim Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani rahim kon mbokki juliti yi mbokki yi yen ñi topp site internet 3w point madialis point org seen Sen Alaaji Bi Sëy mi leen di dégtal sen jotaay yi nga xam bi bu bi ñu ko penchum wolof te kiñ ci dalal di suñu mbokk suñu wajur, suñu soppe di koo xam ne ku ne gis na liggéeyam ci làkk wolof muy sëñ Fallou Cissé sëtu ci moom lañ dikk nii fas yéene waxtaan ak moom lu jëm ci làkk wi kon balaa ñoo jublu ci waxtaan yi dañ leen di bàyyeek moom mu nuyoo ñuy soog a tàmbali waxtaan wi kon sëñ Fallou mu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar tey bëgg lool ci jotaay yi nga xam ne nangul nga ñu ko aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwata illa billah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli dafantu charral jinni wal unaasi bi suuratil falaq suma naas mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu itam ñi ngeen di àndal ci liggéey bi ak ñi leen di déglu te yàgg leen a déglu di ñaaxit nit ñi ku ko dégg ku nekk jottali ko sa morom ndax li ngeen def amna solo waye di jaajeufal ki ngeen fi yebal itam te muy alaaji ji bi sey yalla dogal nak mu xamante sax mu nekk nit ku am euh kon man fallu Cissé laa tuddu ñu di dakentale setu mam maam mam maam dañu ma wo ben bis rek wan mané yow li sa maam bay ginaaw sàggane woo ko kon mën nañ laa wooye sa sëtu maam. jërëjëf sëñ Fallou ci ubbite gu am solo boobu su ko defee liñ la doon njëkk a laaj rek mooy cofeel bi nga am ci wolof ak jaral gi mu la jaral loolu kenn du ko sikki sàkk fi mu ne ci réew mi loolu nag bëggoon nañoo xam lan moo ko jur. bi laaj nga ma laaj bu rëy ñaari yoon ngi ma soog ko wax wax nañ ko ci fi ma académie bi ma bokk muy académie wolof bu sëñ Abdou Khadir Kébé boobu. dama masa tok ben bis ak sama maam ma Yacine Niang dund na téméri at ak fan fanweer ak ben mom nak da nan and ak sëñ Abdou Dia euh, di dem ci sëñ Touba muy diko diko mo don talib bem bo xamne fu muy dem and ak mom te sëñ Touba dafa bëggoon sëñ Abdou Dia radiyallahu anhuma mu dal di dem nee ben bis mu dégg sëñ Touba ne ndaxam mos sama làkk wii di làkk wolof wii may làkk nit dana dem jàngi bitim réew xeetu xam-xam bu ne man faa gage bu ñëwee fii lay gàgganti ko te ki koy gàggante mu ngi dëkk ci sama diggante jumaa ji ak Mbàkke waxut ma ngay dëkk njaareem waxut ma ngay dëkk feneen dane ma ngay dëkk ci diggante sama jumaa ji ak Mbàkke te ci làkk wolof la koy gàgganti ma ne teg bàyyi ma ne sama maam ah nga ni sëñ tubaa mu ne ma sëñ tubaa koo xam ma dégg sama nopp bii ma ne ko maam man yi ma doon jàng yëpp ma banaa ko waaye wolof laa ëpp lu may toppatoo léegi incha bëgg naa bokk ñi ci ñi layal sëñ tubaa ëllëg di gàgganti nit ñi ci làkk wolof te di ko teg ci xam-xam nit mun na jàng gàgganti naa ay imaam ba benn imaam woo na ma fi waat ci sunu borom ne maa ngi jéggulu li weesu waaye lii ci kanam nii nii nga ma firilee baat bii ci alquran ci wax te fu ma wax dinaa ne la ma ca njëkkoon wax damaa di wax naan alaaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur shaa min dañ koy fire ku mu neex macha allah bu neexee yàlla waaw te olof dafa am neex am soob am yabu ban la ci yàlla wax <laughs> boo nee yàlla nee na dëgg mi ngi jóge ci yàlla kum neex gëm kum neex weddi te ka ko doon wax ab islamologue la ma ko doon waxe ca RTS mooy Abdou Aziz Kébé ci moom laa ko dégg sama nopp bii moom ma ko may ma yeewu dem ca rajo ba ne ndaxam nit dana ñak deg dégg aw di ci firi alquran moy lo nit ni te du ko yek dal di jaar ci turam ne mo wax li kep ku def lolu bu la yalla duma mo lako tek te ñak deg làkkam ka tax lak lak ni ndax seen jiri naka ngay ñewé nga ne sama radio biri, de bëgguma ko ko laal wala sama rajo de euh ku ne xam na ne yàlla moom gëm gëm gëm daa lu mune nak kum neex gëmal kum neex bayil ba nopi digi ay duma ak teranga kon buy teral kuy teral ah buy duma kuy duma kon yalla waxul kum neex gëm ku yabu ngay wax ci olof batu yabu ngay ku yabu ku yabu weddi motax mune waye ne di nga waye da ko azab de inna atatna lidhalimin naran ñan la ko def ña nga xamne ne dañoo wéddi yalla ya, du né weddee ngi gëma ñii mu leen neex ku mu neex jëlal bu la neex waye ku ku ku ma duma la kon luma ma neex ko neex dana ku yabu cey ku ci weddi mbaa nga gëm waaw ah, ku yabu la borom kër yi bo delloo ci olof mag ñi dañ daan ñëw ni ah tay nak bu kenn gën génn kër gi ku fi génn kër gi mom ku yabu gëm ku yabu ba kon kon benn ci gàggante ga sëñ Tuubaa waxoon dikk na mhm. te du mel benn imam boobu ñu bëri bari woon nañu ma waaye imam boobu da cee fis daf maa neex mhm. kon loolu bokk na ci ma sopp olof ndax li ko sëñ Tuubaa bëgg daan ci way lu wax lu boppam ne mu saaka na nga ma wax ci li ma do li samay bokk dégg kon ku la ne sëñ Tuubaa du waraf sëñ Tuubaa moom nee na waraf la mhm. te lakk wala mooy lakk loolu moom lu wér la moom waaw moom gis nañ ne sëñ Moussa wax nañ ne sax woy yim njëkk bindal sëriñ bi mhm. da ko defoon ci arab mhm. waaye sëñ bee ne ko boo gisee may woy yonent bi ci arab damaa bëgg ay mbokk buñ ko gisee mhm. xam ko man nag boo ma deetee woy dag may woy ci li ma dégg euh, nàmp ko samay mbokk doon ko ma doon ko te loolu mooy wolof loolu mooy wolof kon kon kon mel na ni xam nañ bu baax fi mu ne cofeel gi ci wolof la ko jur leneen liñ bëggoon a laajaat mooy boo seetloo réew mi jox àq gi war mm-hmm. làkk wi mm-hmm. waaye ci jàngukaay yeeg ci waxin weeg defin weeg ba ci wàllu mbind mi ndax fi mu ne lu mel ne ay Facebook ak internet beeg wala ci SMS yi daanaka ñu ci baree bari dañuy jëfandikoo baatu wolof di ko bind waaye niñ koy bindee dese naa jaar yoon boo demee ci école bi ñu ngi jàng xeetu xam-xam yu bari waaye làkk wi daa mel ni ginnaawal nañ ko lool léegi nag li ñu doon laaj mooy yow noo gisee taxawaay bi réew mi war a am ci wolof ndax am na ak bu fekkee dese naa am lan mooy gàllankoor gi ba tey laaj na laaj bu am solo laaju nit nga ma laaj yàlla na yàlla dimbale ci tontu dama faral di damaa faral di wax ne jàngale olof gi sax mi ngi am waaye nit ñi dañu jaawale jàngale olof ak jàngale ni ñuy bindee olof njàngaleem e olof amagul ndax ku dégg olof kuy jàngale nekku fi mu mel ni nun lañ te duñu laaj ab professeur bu dégg olof amut ci Sénégal te Cheikh Anta Diop laa tàmbalee bàyyiwuma kenn bëgg lañ def waaye dégguñu olof ndéga <laughs> lu ci ne nag soo ma nee lu tax ma ne la nangam. bismillah lu tax. waaw Cheikh Anta Diop nee nañu moo dégg dégg na olof maa ngi mbindam benn kii bu ñuy wax euh, lexique bu Cheikh Anta Diop mu ne carré ñeenti koñ xaw ma mu ne yam koñ bu déggoon olof du wax yam koñ. kon tubaab la ba noppi carré yemul kon ndax carré rectangle ak triangle ñoom ñëpp koñ yi benn la koñ mooy coin bu ñu yàq loolu coll la tudd ci olof bu déggoon olof danaan yem coll te carré yem coll taxut muy carré ndax fii rek di yem weneen tàmbalee fa dëng jëm ne foo fay koñ yëpp lépp lu mel noonu ñoo ko ñoo ko ñoo ko bokk bu doon juróom benn koy yu dend ñoo yem yemu wet la waroon a wax maanaam mètre moo tëdd mètre tëddaat maanaam mètre ci olof nag mooy ab ñay ab ñay tëdd ab ñay tëdd ab ñay tëdd ab ñay tëdd wet yi ñoo yem bu déggoon olof danaan yam wet wet yi nag ba mu yamee mu am ñeenti coolu kooku mooy carré ba noppi bu déggoon olof day xam ne carré njënneeg la ko olof di wax moom foofu laa sukkandiku lu bari la mu ñëw ne wàppeur muy cóola ma ne ko waaw waaw wax dëgg de mu daane baamu ne waaye ba tey des na ko wax cóolool bu déggoon olof xam ne cóolool am xar la mbaaw bëy <laughs> te na na wér go wa mel la day boole ay ku ay ay ay wér go ay maanaam li ngeen di wax couleur day boole ay wirgu yu yu nuróowul kooku mooy cóolóol bu dee ci fas mooy xëcc yaa ngi dégg wax ji waaye cóola cóolóol ak cóolóol cóolóol cóolóol la jaawale ak cóolóol ñaar la bokk waaw cóolóol cóolóol cóola kon daal ginnaawal gi ginnaawal làkk yi lu fi yàgg la dafay yàgg te li ko defit dañ koo teg ci ku jàng tubaab defe ne moo war a jàngale waat olof té ñom ñoo gë ñoo télé olof ñom dañu wara jëk njëkk a jàngi olof ndax ñom ku ci ne la nga dégg ba professeur ci bëggoon ko dégg mo la jaraloon sàggane sa làkk bañ tégal ci mbol kenn ku dul nangoo waxi olof ku dul Cheikh Anta Diop do won ablay wad ñu ne woo taxaw ci kanam tuwa wax sa olof li nak Ousmane kamara moo ko wax moo tax Cheikh Anta Diop mom lim leen gëné moy dëgguna bëgg na te amoon na xam-xam bëgg àdduna ak dërëm dugalu ko ci ndax lam doon def lam jàngoon moo ëpp njariñ ci moom moo ci fa ngir bëgg boppam moo tax may wax man bu Cheikh Anta dund dund man du tumuraan li muy wër wër naa ci lu bari mu yow muy keneen keneen ñi ko yor ci dëkk bi bari nañu waaw kon loolu bokk na ci li ma li may fàttali nit ñi moo ko saxir caab mu ne sero mooy tus te xam nga luy tus tus mooy fii weeyam nga xam ne boo ko tegee dañ fi daan takk puso xamal nga powum takk puso suñ la fi tegalee puso laxas ko ak wëñ ne la nañ lay jox junni nga dem ca taliba te dellu si doo àgg dangay ngay ci suuf takk puso ngoog buñ ko tegee fii ba ba yeew ko loo gën a dox loo gën a noyyi muy gën a wàcc day téye sa deret da ngay dem ba daa nañ ko téye ab sàcc takk puso ngoog ñu koy teg ci tus kili kiti kil la tudd ci tubaab ñu ngi nii ñu ne tus tus du sero sero mooy neen yooyu buñ ci duggoon rek war seen ñàkk dégg olof te ñoo tane kon euh, boo demee soxna Aram Fall nee euh, li ñuy wax euh, nu ñu koy ti naan wóor na ma péng ak céng nee na ak péng benn la nee na lu ci nekk euh, vérité absolue la ko tekkee hmm. ci téeréem boobu mu liggéey baataanu baataanu kii euh, français olof te xamul ne ñoom ñaar bokkuñu bu ma nee wér na na péng mooy vérité absolue ko kenn wérantewu ko waaye ñaar lañu xam naa xel kooku assurance la ci ne yow xam nga xam naa xam naa péng kenn du ko wax xam naa xel ne seen liggéey bi am na solo wóor na ma péng ne nar ngeen a liggéey xam nga bokkul waaw xam naa xel ak wóor na ma peng bokkul waaye nag wóor na ma cëng amut dafa juum cëng mooy wér wér la waaye wérug yaram sante ak soli eh, déggoo ma de ab soldaar laa koy tekkee ne bu ñuy bu quartier bi di soxla ah góor gu leen liggéeyal ku wér céng lañ soxla mm-hmm. lu wutuñ soxla wuñ koo xam dañ koy faj soog koo jëfandikoo mm-hmm. moo tax ñuy defee tes mm-hmm. buñ la seetee nga wér céng ñu jël la waaye doo wér péng te baatu wér boobu moo ko nax wér ci olof ñaar la wérug xam xam gu la wér ak wérug yaram ak peleg wérug peleg wérug peleg mooy jàngoro ji nekkoon ci yow faj nañ ko nga wér peleg kon wër pelek wër céng wër péng légui légui lool dina tax ñu laaj la ne la ndax euh, gisoowu ne mbooleem ñi nga xam ñoy ñi yëngu ci walu wolof ndax waru ñen won dajale tak leen ci benn boom bo xam kenn ku ci nekk sa xam-xam fam ca tollu ñu diso def lu mel ne ab académie ni ñu koy defee académie française wala académie anglaise bu mëna doon lakki ña nga xam yalla may na leen ci dañoo waroon mëna dajé su ko ñu xol la ti nga xam moy di leung ñu ñu ñu doxal loolu ci wàllu taqale baat yeeg baat yi ni ñu ko war a daanaleeg ni ñu ko war a bindeeg ni ñu ko war a waxee yooyu yëpp war naa mën a am waaye daa mel ne loolu amul ci réew mi. loolu li def mooy jàngkatu tubaab mooy jiite réew te ñoom bàyyiwuñ xel ci cër cëral ku jàngul tubaab te xam-xam dafay jiitu tubaab jiitu fi arab jiitu fi lépp xam-xam luy wëreelu ci jaww ji lu ñëw fekk ko fi ku dem ba ko fi xam-xam a ngi fépp. mën nga jàng arab am xam-xam mën nga jàng ay lawbe am xam-xam bala ngaa xam ne lawbe xam-xam la nga yëkkati bant ne ko defal ma cib këll nga yut ko professeur dara la ci mënut lawbe <laughs> ah! bala ngaa xam ne ndaanaan li naan ndaanaan mooy euh, li ngeen naan intellectuel nga am am mbaam rëcc daw dugg ci dëkk bi ab lawbe rek ko mën a jàpp du ci def buum mooy ndaanaanal mbaam Mun li nu gaañ mooy nga wax warna am waye buñ ko don def ku koy def buñ ko don def <clears throat> dañu naan professeur yi la ñu les les professeurs de lettre kooku lettre lay jàngale <laughs> mais professeur yu lak yi moy nim té nim duñ ma ko duñ ma nangul man sax ñoo nangul nañ ma légui waye ne faalu jangul jangul manam duma ma gis duma architecte duma professeur du ma enseignant waaye jàng naa nag bu ma jàngutoon sax te may dof boo xam ne ñoom yéen a nga jëm cee dëkk ba waaye man ngeen fekk may sàmm ci yoon wi te maa xam dëkk ba da ngeen di ànd ak man ma yóbbu leen ca dëkk ba waaye ñoom nanguwuñ loolu hmm. kon loolu dafa jaaru li nga wax hmm. ñu dajale ñi am xam-xam te yàgg naa ko wax ba def naa benn wenn way woo xam ne dama koo tëggal réew mi ngir buñ ko bu ñuy demati fen di ko bàkkoo waaw xëy na bokkut ci laaj bi waaye wax jee ko indi maa ngi ko ciy junj nan fonk li nu am te ku ne génne la nga am loolu ab bàkk la boo xam ne bàkku Sénégal laa ko jublu muy mu tolloog mu weddi hymne national bu Senghor waaw loolu man mi sax bëggoon naa la cee laaj mhm. ndax euh, mos naa dégg nga am ci jotaay boo ko wax mhm. te itam ñu rafetlu ko loolu ndax bàkk boo seetloo ci mbooleem réew yi ci àdduna bi mhm. dafay loo xam ne dafa war a dëppoog askan wi mooy ci seen i xalaat ci seen i doxin ci seen dund lépp dafa war a dëppoog moom te xëy na ci wàllu woowu mën nañ cee critiquer tuuti suñu bàkk yi mooy suñu hymne national bi boo xoolee baatu français yi ci ki ko bind jëfandikoo te mooy suñu président Léopold Sédar Senghor daanaka boo xoolee lam fa wax ak réalité sociale bi am Sénégal mooy nit ñi li ñuy dund ak lii seen aada daanaka wuute na lool mhm. ba nga xam ne waroon nañ koo mën a soppi daal loolu ndax yow di ñu fekk ci xalaat boobu man loolu laa gëm invité nañ ma 2 sis ma ne leen Senghor bàkku dof la nu bàkkul waa ji ne ma lan ma ne ko ma ne ko Senghor bu ma ko xoolee man dama naan ndax bi muy way way wii ndax andi naa xelam <laughs> waa ji ne ma Senghor ma ne ko yéen jàng ko tubaab yéen a gëm Senghor ndax tubaab ngeen gëm te moo leen ko gën a dégg ñun gëmuñu gëmuñu tubaab ndax dégguñu ko nun li mu gëm ma ne ko nun suñu nag ñi baax ñi fi nekkoon gëm seen bopp gëm diine te yàq seen seen dara yàquwut ci seen bopp ñun ñun ñoon lañ gëmoon waaye boo tëggaloo woon tey boo def la woon hymne national ci ñenn mag ñi fi nekkoon duñu ñu wax nu njariñ ma ne ko xoolal pensez tout vos corps li mu déparé li mu dooree rek mooy jóg leen fecc defar leen géew bi te jóg fecc mooy dem bu leen liggéey mu ne ma noonu yemu ci man ne ko lu ci topp mu ne le lion rouge à rouge ma ne ko mooy musiba ma ne moo tax man la danga dof la woon. gaynde gu xonq gaynde gu xonq dafa gaynde gu xonk sax mu njëkk a tiinal nit ñi mu dellu na nga <laughs> teg ci gaynde gi tëb na nga teg ci gaynde gu xonk kenn xam ni mu xonkee ah defar géew bi bëgg fekk mu ne gaynde ga gaynde ga yuuxu na du ndaw mu ne ma des na ma ne ko la fa des soxlawul ko ñu ko ne ngi wut foo foo foo rawe ji ma ne ko loolu moo tax baaxul te sëñ ji àbb baaxul neexul ku bëgg a dem dab say moroom bul wéer sa dox ak sa jëf ak lay jëfandikoo say jëfandikukaay ci àbb ku lay abal kuy ku lay abal bala laa abal noppi déggoo ma de sëñ bi da ngay tàngal café abal ma mu ne ah négal ba ma tàngal ba moo lay njëkk a noppi moo lay njëkk naan te boo ko nanee dàq dàq segg café mu téye café mu seggu kaayam dootoo segg kon ku lay abal boo ko naree dab mu téelam lay abale ndax kenn bëggul ku la dab si rawatina français nga xam ne ñi àndal ñëpp français ci gën a bon ku mu àndal dalay lay jëriñoo da jox ñaat dërëm raay la matt la ba mu ne xappit mu raay dégg de jox leen nag ordonnance woo jënd woo xam ne xaaj bépp ci moom lay dem te doo wér noonu lay def Afrique ma ne àbb ba ca gën a bon mooy àbb loo am ku ne am na wàkk nga dem Abdullah làkku jàmbur ab làkku jàmbur itam la ci gëna bon ab làkku di ca bàkkoo ka kañu nga ak borom ci barab ñu melni jeu olympique ñu né phrase mu di def la la la marseillaise ah français joglé lu songu song suñu liggéey far suñu réew ku nu song daanu ku nu nangam nu bëggante ay bokk lanu waxin la rek nga dem ci Amérique mu ne yàlla rek yaa fi ne gëm nañ la nun de dan la jaamu nag xëy na loolu lañ bëgg a wax waaye yaa nu mën a xiiwalal xiiwalal Amérique suturaal nu dimbale nu nu am doole xoolal jooju wax Senghor ñëw ma ne ko nga àbb làkku jaambur naa jóg leen fecc <laughs> tey wër di ñaan loo de yokkutoo jóg leen fecc amagoo dara nga tala fecc te fecc ñaar koy def kum xelam dal ak ku di fecc yëfi dof la nee naa la bala ngaa xam ne fecc doo yëfi dof la ñu bàyyi fecc mi ba ba ñu tëgg di fecc ba yàgg ab dof dugg si ci biir géew bi ñëppay bàyyi di seetaan dof bi. ndax alalama alalama <laughs> moo moom fecc <laughs> dof ko moom. waaw mën nga ñëw masal masal tuuti ci bàkk boobu nga xam ne yow moom moom ngay proposer wi. waaw bu la neexee. nga masal ñu ci tuuti rek. kon ma daaneel benn baat soo ko dem mooy. waaw sëñ bi boo àbbee laa ko jaambur bàkku. Mm-hmm. borom lak bi ci bopam bakku fi nga bakko ñu woo ne la waaw yow yow de yag waaji yene yéene bokk aw lakku ngeen bakko wu ngeen kañoo wu ngeen nangam wo waye seen bop te mom ki da xonko we yow nga ñu loy wax ko xamne da la bëgg saboter rek da la bëgg <laughs> man ba ko laaje ay professeur ca bañ may def lo waxtaan kenn ku ne nangu wax mané ko man laaj leen ma ko ne ma non ay jaamam lan dama di jaamam motax may may wax ci waxam sañu ma wax say wax manako ne da Senghor daa jaamoon jaamu tuba bi bëgg noo yóbbaale ci jaami tuba dong motax wayul ci séréer Senghor bu doon nan sama am de culture bu doon am de culture mo way ci séréer defal nu hymne national ci séréer mba ma njaago legi nak man wolof la suma doon president de la republique dama koy daan di fële sànni ko def sa boss besu ba gi mm-hmm. da damay wax say député ñu waté ko mm-hmm. <laughs> mu jall moy lan nan fonk li nu am ku ne génne la moo xam te nu def ci sunu jom mooy tax nu mën a dem lu ko moy nu dox ci lëndëm dox ci lëndëm waral na gëlëm lu ko moy nu dox ci lëndëm te dox ci lëndëm waral na gëlëm ku ci fonk lu àndam ka yor àndam ku ci fonkulub àndam xaaraan ka yor àndam Sénégal Sénégal Sénégal a reefen melo nooni mu rafete melo nooni la ame solo nooni mu rafete melo nooni la ame solo nan fonk njàng mi ak mbay mi bokku gi bañ a sàggane bokku gi nan fonk njàng mi ak mbay mi napp gi bañ a sàggane bokk gi dafay waral mën dem lu ko moy nu dox ci lëndëm te dox ci lëndëm waral na gëlëm nan fonk soonuy gan di teral di muñ bu nu daw bu nu tiit bun delloo ginnaaw lu dul ci lu ko jar Sénégal na solo. am na solo de xaajul de. lu bari laa denc ci biir. ndax boo ko yóbbu ca internet ba gars yi këf ko yóbbu def ci droit d'auteur fekk ma na <laughs> xoolal loolu. am na am na solo macha allah. li may wax ba ma gëddee rek day dem sa yaram. dëgg la te itam dëppoo naag loo xam ne askan wi dañ koy dund bis bu set te itam da leen di jariñ. ci da leen di jariñ nan fonk li nu am. mooy li nu moom xam ne yàlla dama ne. buur yàlla daa séddale jox ku nekk cër. nu nit ku ñuul nag bëggoo sa wàll gedde lay niroog na dafa mel ni yàlla li ñu jox buggunu ko mhm. topp ci xaaraan te ku ñëw nag feddli loolu gën a ñoo jox bopp tubaab tubaab yi tubaab yi nañ ñu waaye nun noon nanguta ba tubaab yi ah te kat système bu tubaab di doxal am na mag mu nekkoon fii moo xam ne ku ku doxoon dundam xool li mu bind ak ni mu yoreem réewam ak dëkkam te nee naa leen dëkkam a ngi dem dem rek mhm. fexe ba réew mi am kilifa fexe ba am réew mi am benn baat buy jóge ci kenn loolu moo dal sëñ Tuubaa sëñ moom Moustapha Basiru radiyallaahu anhu daf ne yoonu murit nii rek la kenn nay wax ñëpp jëf loolu moo gën démocratie démocratie day yàqum réew dëkk day am kilifa démocratie du defar réew bu ko doon defar américain yi am démocratie français yi am démocratie kenn amu ci démocratie dañ koy wax nii rek amul amul kilifteef moo baax da ngay xol lolou nak kon buñ delo ci jangale wolof ci lan joge won bala nga jangale nit dañu ne jàngub tari fen la mané koy boy jangale olof wax nit ñi mëna bindé baat bi ma laaj la baat bi lu mu mané la bindal ma kelliyama nga bind kelliyama mané la ko wax tay ñi koy jangale mëna ñu bind kelliyama mané luy kelliyama nga ne dooma xoox kon loolu jàngale jàngale tubaab mooy bindal naa la prestation nga bind prestation ma ne luy prestation nga expliqué ma waaye tey kelli yaama mbootaay xar mu dagg ñu woon la xar mu fas ak xar mu dagg xàmmee woo fa xar ak fas mm-hmm. loolu baax na jàngalekat yi nar a jàngale ci école bi fii lañ tollu ci làkk wi waaw balaa ngaa balaa ngaa romb wala balaa ñuy tëj jotaay bi ndax daanaka ñu ngi ci cappaandaw gi. Hmm. baatu Kelliyaawa boobu te nga koo laabire mbokk yi doon topp waxtaan bi. boo demee ci bàkk yu ma defal sunu soldaar yi ne naa ko ay Kelliyaa ma ngeen. danay ñoŋal ñag seen taxawaay rafet na bokkul ak takk takk mooy fas wuñ yeew buñ teg ci saret takk ko muy mu mu mu mu mu yëkkati tànk ya saret bi jootu fas tànk kanamam yëg ci kaw loolu mooy takk. Hmm. Ah, mana ma ko yeen taxa te taxaw na ndax ñaari tanki taxaw na seen taxaway nak da ngeen taxaw taxaway nit ku na ra defar ñoom soldaar yi kiliyam moy lo loo xam ko defare day tiital nit sol tol gi comportement manam nga gis ko mu ñang yor fetal gi nak ku taxaw ci buntu keur president kiliyam la lay jox kiliyam ma dan def ben dañ ko def ci tol yi mu marionnette ñi diko wax xoran bari na ay tur moy épouvantail épouvantail la wax dama juum hmm. épouvantail nga gis mu mel ni nit ku ko seen golo yi buñ ko séenee dañuy ragal mhm. kooku mooy ci kéll yaa bala bokk waaw kon jotaay kenn du ko wax amul bokk na ci baat yi ñu war a njëkk a defar mhm. jotaay la wax ñu mel ni ñoom Ahmed dara mhm. ñoom dañuy dañoo dem ñu ñemee wax am fu ñuy wax te xamul lu ñuy wax ñu yàq rek te yàq bu siiwee bu defar di ñëw day mel ni kuy weddi bu ko defee nag liñ fi fekkoon la ñuy gëm te ku yàqu topp li nga fi fekkoon ba li baax ñëw nga wàcc ko fi ndax lii laa fi fekkoon alxuraan bi ñëwee li ngeen fi fekkoon baleen ko lii dikk lee baax ku fi fekkoon ab cox ñu suukar ko jox la ngay lekk laaxu coo laax bi ñëw bi ñu génne woon cox bi suukar ko defal sa <laughs> ki lekkal laax bi moo baax kon noo ngi leen di gërëm ci lu wàllu mel noonu fekkee am nga yeneen yooyu laaj. waaw yeneen yi. xam naa loolu moom lu ñu lay jagleel la sax incha allah te may wàllu jubbanti yooyu. ndax lu ñu soxla la. ndax boo seetloo lu mel ni média bi mooy ci wàllu télé bi wala rajo bi wala lu mel ni journal yi nga xam ne ñooy génn bis bu set yooyu dinañ ciy gis ay yàq yoo xam ne yu doy doy waar la. te bu fekkee kenn jubbantiwu ko mën nañoo jàpp ne noonu la mhm. moo tax daal bëgg nañ looñ ci mën a baaxe rek ci xeetu yàq yooyu nga xam ne yu siiw siiw la mhm. incha allah ñu koy jottali mbokk yi ba ku ne di xam nañ ko war a bindee wala bu dee waxtaan nañ ko war a waxee loolu dinañ koy soxla incha allah waaw kon muy ñaari anam muy ni ñuy bindee mhm. ak ni nga xam ne noonu lañu war a waxee boo demee wala fajiri dañuy bind baatub ataya ataya lañ bind te at attaaya manqué na maanaam yées na ab të ak beneen a attaaya wolof yi seen wecc la warga wolof yi set wecc la warq waraq ci arab mooy xob ñun bu nee warga mooy euh, li ñuy dem di jënd buñ ne attaaya mooy li ngay naan ñoom ñu ne saay kon dëgg dëgg bokkuñu hmm? mm-hmm. yooyu dañ ko war a xam boo demee TFM am na njegemaar njegemaar mooy adolescente nga indi soxna su la mag fuuf nga ne mooy suñ njegemaaru tey mooy nga mi ngi nga tëdd ko xale bi dem indi ku toll ni saa baay du wax sa baay ndax dafay bañ mu <laughs> waaw nga toll saa baay ne suñ xale tey baa ngi nii <laughs> ah yaa ngi dégg. dégg ah, nga ne. émission bi nga tuddee ko ngóor si dem indi sëb sëriñ ne ngóoru tey saa ngi nii noonu mu ñaawe dañ ko war a leeral waaw moo indi jotaay te seen TV émission ràcc baat ba baaxul ràcc lañ bind te ràcc mooy rescapé te ràcc mooy yàng say tànk sa yëpp ne ci biti xam nga loolu baaxul wax ji baaxul liñ ci jublu baaxul niñ ko bindee baaxul te yooyu dafa war a am te nag am fayda ju toll ni nag kenn ñemee yàq nga ñeme ko ne yaa yàq ama nag noonu lay def ca rajo ba lay dem dama naan sëñ jibi sëy moo wax ne baaraam wi dama naan ko kenn wax baaraam wi baaraam bi ba ñëpp gëmoon kooku xam ne du noonu ne may ko ma ba yàqee neen Fallou Cissé ko yàq hmm. olof kenn moomu ko du sëriñ du kenn ñëpp ko bokk kon yéen it lii ngeen di def te fas yéenaa defaral réew mi loolu dong mooy defar réew nag kenn ku ne jàpp ne dangaa war a defar ma ne bu kenn ku ne defee ne yaa war a defar dara du yàqu man nag booba laa daal di sawar dégg nga de ne ku bokk ci am ndaje mu ñuy pàkkar ci su mënta fecc tàccu mbaa tàqar mooy loo xam ne danga foog xaalis bi lemale ko ñu tëdd ne ni ngay dindee benn wenn kay teg fe loolu mooy tàqar ci waaw waaw bu nee nag làqar ci nag loolu la xasoo la ni buum nga wëndeel ko yooyu yëpp dañ ko war a wax tey boo ñëwee nga ne euh, caada dañ ko war a leeral ki ko fent mi ngi fii di dund mi ngi di liberté six caada du olof dañuy ñoom dañuy wut seen baat ay baati bopp di ko def ko ci olof ndax ñoom luñ xamul rek daal di koy wutal tur te yow da ngay njëkk a xam ne yow làkk wi déggoo ko loolu nga war na njëkk a def te mën a fent fexee ba dégg làkk yoo gën fent yomb na xam nga caada dafa dañoo jël cëdu nekk ci ci ci cosaan daal di jël aada bii arab boole ko muy caada arab mooy wax aada te nun li arab di wax aada moom la ñuy wax baax li ñuy wax nag cosaan mooy lu fi yàgg mu soog a am nag mbatit c'est la culture mbatit fii laa ko fekk man fentuma man nee naa li ma fent dama doon nekk ba ñu toog bis ne dañuy woote li nga waxoon ñu dellu fa ne ah nañu daje seet ku ne li nga indi ñu xool xool ba ngi ne waaw nun de danoo bëggoon indi télévision daal amuñu turam donte sax man nanguwuma ñu ñuy wutal télévision ay tur nan fexe ba liggéey ko waaye toog fi di yàccaare góorgóorloo wuti tur <laughs> dañoo war a fexe wuti tur li ko wutal ko tur yomb na defar ko moo jafe mm-hmm. defar ko nag li feeg dañuy fooye suñuy waroom xam-xam di yëkkati suñu waroom yi ay caaxaankat ak i ay ay su boobaa réew mi du dem mm-hmm. am réew li koy defar liggéey ak ànd ndax bot di konteeg féewalooy jur pënd dégg ko de mm-hmm. bot di konteeg féewalooy jur pënd kuy boddiku mooy xeet wala topp nga wa ko sànni loolu mooy boddi boddiku mooy xaw ma nu ngeen ko wax ci tubaab. Mm-hmm. la nangam nangam raas raciste xaw ma. Mm-hmm. mooy boddiku ci kaw xeet. Mm-hmm. am réew dañuy fonk ña am xam-xam. fonk ña am man-man de te mooy mécc bëgg a liggéey waaye jàppale waykat jàppale mbër jàppale fecckat football kat nangam nangam alal yépp ñu jox ko suñ caaxaankat yooyu te duñ fi indi dara. tey dara du leen ci fekk nag. ñoom bu ñu indee lekk nañ xaalis bu ñu indiwut indi lekk nañ xaalis ngay taxawaalu boo demee fi mu ne lii ngay def ni yëpp yaa ngeer loo xam ne bu la ko réew mi joxoon réew mi dox la waaye réew mi ñoo soxlawut ko mel ni moom kooku kay mooy jël jomam ak pas-pasam rek na naa liggéeyal sama réew ngir yàlla bu ci séentoo dara sax du dem te kat lu waay def ci lu baax gaa yaa ngi koy gis ñëpp bëgg lu baax dañ ko dul nangul nit te loolu nag moo bon waaye xam nga ne ne dangaa bëgg a jàngale làkk wi bëgg a delloo si làkk olof doo puukaréewoo sëñ Moussa Ka doo puukaréewoo sëñ Mbay Jaxate mm-hmm. doo puukaréewoo sëriñ naa num tëti Cheikh Samba Diarra Mbay sëñ Mor Kayre mm-hmm. doo puukaréewoo Fallou Cissé mm-hmm. nga xam ne man dara dana xew ci lu ñuy wax ci olof ba mu jàll kenn du ma woo bokkuma moo tax ma ne nag ku wër di laaj di wax di waxaat nit ñi boo demee ba ñu laaj la nga war a wax te gisoo koo laaj nga fent wax fent wax nag fenn fenn ceeb <laughs> sànq tam am na loola loo xam ne yëggal woo ko. Mhm. mooy bi ngay dugg ci baatu télévision ba ne ñu ñu liggéey ko moo la gënal ñu wut baat. Mhm. ndax boobu yaa ngi dugg ci wax li tax làkk baat boo xam ne gan la ci moom mu war koo wuti. Mhm. léegi loolu baatu télévision loo ci loo ci xalaatoon. waaw man yooyu def naa ci yu bari boo demee ci suñu académie bi daanaka sax ñun noppi nañu ci lu bari ci tubaab. lu ci nu wutal nañ ko tur te day dëppoo man nag ñu may fent damay fentat ci biir wolof boo demee ci

sàng nag mooy ku ñëw mën koo xool ko am gën njéeméer xott mooy lu ñëw ci njéeméer gi ma taxaw fi ci mbedd mi ne bëggatuma mburu ñëpp dégg nañ ko ndax njéeméer xott hmm. man noonu laa ko tuddee. mooy rajo mooy rajo njéeméer xott njéeméer fàng ñu dem ci académie ma tudde ko sàmba tër hmm. fu ñuy same baat di ko tër hmm. nga xool sam baat docteur ñetti bat la bolé indi la nag ne olof day waxé ni samba si jaar nangam nangam ba indi lenu mat fukki bat yoy non la tudd ci olaf ñu né waw mo indi la ci grand-mère ñu né grand-mère ñom naw olaf lañuy wax waa batu arab la mm-hmm. naw olaf. mané ne man maa ko tuddé leug leug d'ailleurs démé sun académie sax ñing ko tuddé nos nos wax té nos wax mooy ni ñuy formé wax loolu la loolu moo du du grammaire wax naa leen ko ba tàyyi ànd naa ci nag naa ko ànd naa leen ànd naa ci dama koy wax ci seen biir ñoom ñëpp waaye lëgg-lëgg mooy lépp lu ñuy def fam gën a jafe loolu mooy lëgg-lëgg grammaire a xam nga ne jël baat ne dafa am ñeenti wax ñeenti ci ba olof làkk nan du ma du ma leen gis waaye yëf yi ci jaww ji la ne boo laajee jox la ko. dafa am lu ñuy wax looy. looy la ñuy mooy lettre mu am moo. moo mooy li looy yi dajaloo ba bind ko moo ci biir am na tur am sant sant mooy dàkkentalu tur ni ki Moodu Njaay ay looy a koy bind moo tax ma ne looy lenn la luy ànd te du tekki lu du turam. ku nekk làkk wu nekk num tudde looyam kii tudde na ko baa baa un kii tudde ko bee kii tudde ko biribiri kii tudde ko boobo man nun olof ne bë benn la ñëpp am bë bi <laughs> ku nekk nañ ko tudde mën nga boole nag loy yu bari pour muy sëqab sëqab ndajem ndajem loy mu mat tekki leen mu doy tekki leen mm-hmm. ni ki moodu dootoo fa dellu weneen weneen loy mu u u doo fa doy na mu nekk tur sant wa nekk sëy moom it looloo ko dal mu am nag baat boo xam ne du tur du sant waaye jëf la ñu ne jëf nag ay xeet la am na jëf ju wéy am ju teew am juñ dëgmal am juñ juñ masa dëgmal ca kanam la mooy lu xalsata am waaye kenn xamul kañ la am lu masoon am yaa ngi dégg de yooyu moom ngay boole ngir nga mën a bind yaa ngi dégg wax ji kon bala ngaa mën a fent dangay mën a xam looy xam baat xam tur xam sant xam baat yi yàqu xam yi ci dugg te bokku ci xam baat yi nga xam ne dañ koo xamut waaye olof la yooyu nag dajale naa ci man juróom-ñeenti téeméeri baat ak ak lu mat juróom-ñaar fukk yoo xam ne dama koo bernee bokkut ci téere li may bind di waxtaan ak nit ñi léeg-léeg ma jël ca ñaari baat dox la niki tey bu ma ñëwoon léegi ma wan la nga nga gis ma indi cémb mooy birit mooy loo xam ne gas nañ ko ci oor bi mbaa jël nañ ko ci essence bi walla nangam ñu boole lépp waaye yu bon ya génneeguñ ko la ca gën a baax beraguñ ko loolu moo déggu cémb ci baat yi defe woon nañ ni amul boo demee ci arab ñu ngi koy wax tibr nga ñëw nga ne ceñ c'est la latrie ñu bari xamoon xamuñu woon loolu am na nga dem ci orbite mooy koto ñu naa ngunoo dëkku aw yoonu yoonu jant beeg noonu te koto la tudd mm-hmm. ngi ni koto bi nga dem ci goudron muy koltaar al murlu lañ koy wax ca daara koltaar nga dem ci tactique loyaan fii laa génne baatub loy bi tekki lettre fii laa ko génne nga ñëw indi public mooy njéeméer ngoog nga indi fétiche li nekk ci biiru nit jigéen te ju doogul mooy mbéemur nga indi capital mooy gëb la nga indi son muy ngelir dégg nga de nga indi assemblée moy ngomblan nga indi eau de source mooy poox ah macha allah yaa ngi ligue ha waye nak li bu yeme ci kayit bi ni rek wa ma ngi bind ku melni la soxla wa warna meuna genn su dama ne askan yu meun ko jëriñoo dama waxtan bis ba joy mané ne indi len may xalé lu mu new ni soxla na ñeen fukki xalé ñu tëj ñu ci barab atum yalla ak genn wàll ma jox leen li ci olof. su ko defee mën koo jëriñoo. ku ci ne ñu sas la. wenn wëppa mooy benn matière. damay toog rek ñu ni upp nag du nu du xiif du mar nag waaye ku kan kan moo kan la ko Sénégal jaral. Fallou Cissé boo xëyee kat ñeenti téeméer yi wala juróom téeméer jox ko sa soxna mu mu togg ci añ ngeen lekk waaye nag baati olof yi leen bëgg nga jox moo xam nag lu ñuy jox. xale ya moo xam ñaar téeméer nga leen di jox moo xam ñeenti téeméer waaye xale ya bu dee ne yuy jàng ku ne ñu jox la kaye jox la ordinateur Baye Fallou ñu ngi lay laaj ci jëmmi doomi Adama Baye ñu ngi lay laaj ci wàllu mara Baye Fallou ñu ngi lay laaj ci wàllu ngelaw Baye Fallou maa ngi laaj ci wàllu léeb Baye Fallou ci wàllu taasu Baye Fallou ci wàllu taaxuraan Baye Fallou way Baye Fallou ci wàllu nose Baye Fallou nag nu wax li nga xam ne mooy wàllu suuf baay Fallou ñu ngi lay laaj ci wàllu taw yi bàyyi fàllu ci wàllu miir lañ lay laaj kenn du ba ko sa morom lay wax gunóor yi sax yi waay waay waay ku mën lii ah te lu ci ne foo laaj mun naa ci wax suba ba jant bi sox te du du jeex loolu yàlla moo ma ko defal ah waaw ku mel noonu nit ci am réew tey nee naa la mbër mu mënta bëri te am mbooloo kebe sax làmb ji soxla nañ ko ñoom am nañ fayda loolu tax làmb ji siiw di mm-hmm. ku ku am mbooloo rek ñu dugal ci làmb nun nag boo gisee du dem jàngkati tubaab yi nekk suñ kanam te gorewuñu gëmuñu kenn ku dul seen bopp ku ñu jàppale dañu lay nax politicien bu toog wut ku ko jàppale du du ngir lim jàpp bañ a daanu waaye du pour réew mi jóg loolu wax naa ko ba tey. waaye dañuy dañuy sàkkoo defaroo ci réew mi waaye defar réew mi tax leen a jóg. loolu laa wax ba tey ma moo tax ku ci dem ba jekk boo bàyyee xam ne sa ngor du la may dëkk fi ak saw fit nga dem dëkki France danga doon liggéeyal boo dee ñu indi lu néew patriote bàyyi fa alali patriote ah moo tax ma ne bu ma nekkoon député dinaa wut lu luwaa boobu dañuy wut armée gàcce ak ñàkk jom président bu dee bitim rek bu ñëw nit président diw ñëw na ñu ngi koy suul armée li ñàkk jom <laughs> ku goree dee ñëwoon nii koo xam ne alali réew mi yëpp yóbbu na ko bàyyi ko France dee na nag ñu andi lu xottu yi nga xam ne France daa bañ euh, suufam fees waaye yóbbu leen ko ci armée li ñàkk jom ah te loolu moo wér hmm. sëñ Touba xoolal li mu liggéey ci réew mi yi doomam anay sëtam ana alalam léppam ci biir Sénégal nii hmm. lañ lii mooy patriote waaye ku toog naan patriote patriote te boo noppee dañ ñu la yutaat boo dee waaye nekkoo fi ana sa patriote euh, ana maam alaaji Malick ana sëñ Fallou ñëpp li ñu am fii lañ ko def ñoo ñooy patriote yooyooy gore yi ñoo ñoo baax parce ah, sant nañ bu baax nag àgg nañ ci cappaandawal waxtaan wi mhm. bég nañ ci lool nag xam naa ñi ngi jégalu ñi ko doon topp sax ndax mhm. kenn doyalul mhm. xëy dinañ sàkkaat yeneen jotaay incha allah wéyale liggéey bi waaye liñ doon daanelee rek mooy boo ñu mënee baaxee ñaari léebu rek ci worof ñaari léebu su ko defee mbokk yi mën ko jëriñoo. daa jox léebu pël ma nga xamne lak yep am solo man yep ma neex dañ koy jël rek tekkil lako ci wolof waye da nañ indi lebu wolof lebu nak dafa mata tey ndax nit ñi luñu dégg mu jëg rek ñu ne lebu te amna lebu am tasu amna na amna réxetu am dàqum ganar am itam luñuy wax euh réxetu am léexu fokk ñu xàmmee leen léegi nag lañ naan sànni xeer sànni xeer ñàkk dégg léegi nag ci léebu yi am na léebu yoo xam ne judduwaale la ci làkk wi am na léebu yoo xam ne nit a ko wax waaye boo ko déggee xam-xamewut niki léebu ne léebu taasu picc picc ndobin ramatu da cay naawandoo picc picc ndobin xam nga wax na moom it daa waxandoo waaye li wax dara baaxu ci mu ne picc picc ñu ne waaw bu olof waxee benn baat ñaari yoon muy taw kiit mooy mooy répété ko mooy baat bi ñor na ko te dëgg-dëgg da maa tooñ bokk la da nga maa tooñ rek ah mu ne picc picc ñu ne waaw mun ne ndobin nee na picc daal bu ñu koy wax ndobin a tax kon daal mel ni a gën a rëy wala mopp njëriñ ndobin gënta rëy te picc yi gën a ñàkk njëriñ la bokk ñu ne ko waaw loo bëgg a wax mu ne ramatu moom da cay naawandoo waaye du picc lu tax daa delluwaat ci ndobin picc picc daal ndobin kon ndobin dong mooy picc waxu dëgg bu dee réy la xooba ko ëpp te xoob am na njëriñ dañ koy lekk yàppam neex ba xaaboo ko ko dàq xodda ko dàq gën koo rëy ñu bàyyi yëpp baa ko dàq te ba baa ko gën a rëy te baa bànjool lekk gën a dàq dañ koy lekk di ko jaay di ko war di ko sëf xam nga kooko baaxul mm-hmm. waaye nag léebu wi kajoor a koy wax nee na am tos yomb na waaye sënk boroomi nag ak am mm-hmm. na am yomb na lool waaye sënk boroomi nag loolu mooy léebu mm-hmm. tuddut kenn te ku ne mën na koo jël jariñoo ko nu la neex nee na am tos tos mooy li ngay def ngir sa sa gàncax mën a mën a meññ mën a rëy la nga fay def ca tool ba li liñ ci xam mooy. engrais engrais olof amoon na ci yeneen lu mat juróom ñoo wala ñeent yoo xam ne yëpp tos la te moo gën a engrais du rey dara te indi posan du ca indi ngaañ moo waraloon mbayum ndiraat moo waraloon mbayum euh, xaaxo yi moo waraloon mbayum euh, nu mu tëddi rànj moo waraloon rijji moo waraloon yooyu yëpp ci la bokk moo waraloon baaf loolu lépp tos la. mo waralon neefara amune ah. am tos amune ne am tos ci bopam yomb na de nee na fexe ba am tos lo def sa tol ni yomb na way seunk nak mom mo jafé ñu ne la ko ku koy man mu ne boromi nak kon maye bax na lol waye nak di maye fo tol borom alal am ku weddi loolu daldi ne ah borom ngàdd yegul borom pañi ma ne ko bu na bañ a toppandoo borom pañe ci fooy ak maye bu koy def di ko yëg wax yooyu dama koy topp di ko dindiwaat bokk na ci yi ñu war a defaraat borom ŋàdd yëgul borom pañe ah kay borom ŋàdd yëy rek lay def borom pañe day yëy di maye di jaay <laughs> bu ko yëgul moo ñàkk fayda te mi nga wàcc loxoom na fa dem mu may ko <laughs> bokkuñu de mm-hmm. waaw te lim ci bëgg a wax baax na naam waaye ni mu ko tëggee ci olof moo baaxul mm-hmm. waa da am jabaram and ak mom ca tol ya muy tob bi tob bi suuf si jabat di yor limi jiyé de ko ko jiyel top ci ginaaw ma nga ma nga ma ngay rek nan am ndaa toj nda am ndaa toj nda bobu nit ñi ñu dégg olof lo bëgg wax xam nañ moy suma suma damay tak jabar wa ma andal nawet bi kay ren bu néré loolu la ci jublu damay tak jabar wàcc ji am ndaa toj ndaa lii jabar ji dégg ko dégg na olof moom it muy tibb tibb tibb lu bari bu dikkee fekk tooba mi nga xam ne moom lañu war a def eh, jiw bi ngir mu sax mu suul ko fab fab li mu tibboon sànni ci àll bi naa ku ko fekkee doone sooy tibb ko fekkee doone sooy <laughs> dégg na am ndaa toj ndaa ku ko fekkee doone sooy ku ko fekkee noonu la ko toppee. <laughs> fekk mi ngi wax mi ko tontu. Mm-hmm. ah ñu dem nag ba nawet bi am ñe juróom-ñetti fan fukki fan ak nangam kon lim jiwoon war na sax mu dem wéri tool ba gisul dara xool xool gisul dara moo soxna si ne ko waaw waaw ñun liñ doon ji damaa jóom wala mu ne ko fii la nijaay mu ne ko waa ana yëfi nu mu ko yaane am ndaa toj ndaa lu mën a doon tontu mu ne ko ko fekkee doone soo yi ma ne ko doo am dara soo mooy doo doo am satisfaction mm-hmm. ndax li nga waroon a ji fii yëpp sànni naa ko ci mbooy gi <laughs> te am ndaa naa gi lay bañ. ne ko gannaaw moom boobu bu doxee bu doxee rek may wacc <laughs> may du dem xoolal yooyu wax. jigéen ñi ne ca tool ya. bay ba laa laaj bu tàng ñu dem war a defar dugub. ñu dem ca dàgga ja boj ja bojj pënd bi jàppaleen ñu fundooñ ñu ne ah nan dem ci teen bi wut ndox dem ca teen ba di wut ndox fekk teen bi ndox mi dafa tóoru ci kaw ban bi ban bi tooy ak joggi giñ koy joggi mu rappaji ko dugg ci seen tanki ba ci seen yeli mu ne ñak jigen ñi ne nun daal sonn nun kaay leen jël seen jël jël seen pan dem tok ne dal di depp ña ngay way ña ngay taasu taasu bi goor ko jigen ko mom ak goor mu ne way xetax bi ci dàgg ak boko bi ci teen nga ne déggal de mu ne xetax bi ci dàgg ak boko bi ci teen waju ñaw jaru ko waju ñaw yal na ndayam de gari gay fecc reng reng reng reng tepp xetax moy peunep dugub ju ñuy bojj mu der sa yaram day xasanu booxoo mooy ban bu ànd ak ndox boo ci jogee day nan rappaj dugg sa tànk yi nii ko ta bala ngaa xam rek ñu def latérite latérite bi ci kaw tali bi tooyal ko ndox nga jogi noonu lay mel wala oto yi jaar ci ba jàll nga gis nii nga xam ne kii ci latérite la jaar mu ne nag ndaw waaju ñaaw jarul lii coono bi nu nekke ndax ju ñaaw sax yàlla na ndeyam dee góor ñi ñu mi dégg ko Dari di ñëw dàq jigéen ñi jël pan nga daal di ñoom itam ndukkal li ci ko ko jabalak di ci larmet ndaw ci ñaaw jaru ko ndaw si ñaaw na ndayam de loolu tontu mom moom la ko tontu ñoom ndukkat moy da ngay seug yor konko di gabbu jël mbuus tak ko ci sa mu tuddu sonko jéré nga def ci li ngay ji dugal sa loxo di tibb dugal sóole sa tank sëgg goog ngay sëgg di deme ndeyjoor di deme càmmoñ di deme ndeyjoor di deme càmmoñ loolu mooy ja mooy mooy mooy ndukkat am na ñooñ ko bu ñu ko daan def mën nga tëgg ak tamat dañu dafa rafet ni ñu koy defee mm-hmm. booba dafa xew booba machine amul mm-hmm. mu ne ndukkat li ci konko ak a metti mu ne waaye nag jaabante gi ci larmet na jaabante ci larmet mooy konko gu gën a gudd mm-hmm. nga xam ne da kay day mel ni gopp man na maanaam ñay ak genn wàll ñu def ci ak weñ gu def nii larmet la ñu jamee ci suuf si xëcc mu ubbeeku nga jam dem ba nee nga dellu si noonu ngay dem a këcc loolu mooy jaabante ci olof nga xam dañ ciy jàngale jaabante waaye et mooy waaye et vient ji ci larmet larmet da ngay dem nee ñëw konk nag da ngay sukk ñaari ñaari raa ngay jël mooy ñaari raa mooy fala tracé nga def nii def nii def nii def nii dem ba sori dellu si dëppaat di ñëw noonu ngay doxee di dem nag moo tudd ndukkat ñu ne ñoom itam boo noppee sa ndigg li mitti fële nag boo demee doo xam sa wéj gi day jaaw jaaw mooy da ngay dem ba bay bëgg a sori dellu si ñu ne ndaw si ñaaw it jaru ko ndaw si ñaaw yàlla na la yam dee xool nga ko yooyu taasu léebu la boo ko lëg léebu li ma la waxoon mooy mooy woowee ca am tos yomb na mhm. kooku yëfi boppam la moom itam mhm. mu soog a am lu ñuy wax gaaruwaale mhm. ñu ne gaaruwaale bañ na sagar gaaruwaale mooy léebu woo xam ne dangay wax tuddaale lenn ki ngay wax ni ki tey nii nga sole sa mbubb mu rafet nii man may wax sama doom ne ko billaay yaa soof sa mbubb mi rafet mu sa mbubb rafet bi ne bu ni sa xol bi rafete woon <laughs> loolu mooy gaaruwaale ñu ne gaaruwaale nag bañ na boroomi sagar ndax boo ne ak sa sagar yi limbir limbir yi te moom rek moo ko yori sagar xol bi day tàng ndax ci sagar waaye xam nga wax jooju da ree su ma ñëw ak sa mu rafet ak sa weer yi xam naa jàpp na la day <laughs> jàppoon sa fula dee ko gën xolal gaar waale ngi mu gën a métti kumba am ndey kumba amul ndey dañoo demoon ca sabar ga kumba amul ndey ay sagar rek lay yor ndey ndey day nëb ndey saan bu bu sax mu xotti ko kumba am ndey nag ndeyam daa dem ci ay xaritam ñi abal ko ceen ñi abal ko long-long muy jaaro yi ñi abal ko ay ndoket ñi abal ko dàll ñi abal ko saak mu ne sogg mel ni doomi pataron mm-hmm. ah, mu ñëw ñu ne dañuy fecc booba ndaje dañuy fecc dafa xewoon ci jamono ndajo mm-hmm. retrouvaille la daan doon ñëpp fay ne ñu daal di ñëw di tëgg di fecc ku ne dee géwéloo naam rang rang rang nga daal di dugg daal di taasu taasu ci léebu la waaye léebu taasu la te léebu taasu gaaruwaale mu daal di ne géwéloo ñu ne naam mu ne gaaruwaali gaaruwaali nga ne gaaruwaali foo ñibbee gaaraatu gaar mooy réparé dem liggéeyee wala tukkee soo ñibbee mu xar nga gaaraat ko gaar mooy ñaw ko bën bën yeeg toj toj yi mm-hmm. loolu mooy gaar ci olof mm-hmm. ñëpp reetaan mu daanu te morom yi daal di na ñëpp nag na ñëpp fekki nag ndax bëgg nañ mu gis ñu gis doomi baay ji ak sagar yu bon ñu ne Kumba mu ndey de nañ ñibbi boog Kumba mu ndey daal di ne damay fecc ñu ne yaa ker sagar yi ndeysaan mu daal di dugg ne géwéloo ñu ne naam mu ne man bañ abba ma cib gaar joo nga ne lu fi waay wàllee na ko maye seet rey na ko <laughs> ah, gaaruwaale loo mu tontu ko ci gaaruwaale tudd na ci lenn ci lim def mu ne ko man nag damaa bañ a te xoolal ni mu waxee wax ji bañ àbba ma ci gaar joo joo moo ma ci dugal mooy moom ma ci dugal mu ne bañ àbb moom a dugal ci gaar hmm. samay yére li ma moom ma di ko defaraat hmm. xoolal kooku lim nu jàngal waaye nag képp koo xam ne loolu dalu la bañ a àbb dalu la tax nga a abbaatu lu fi waay wàlle si fii ñëw indi ko fii ci mbooloo bi na ko maye fi rek ma xëy looy jooy waaye na mu wax gis nga ko tontu na ko yii mooy yii def naa ko juróom-ñaari xeej xaaj séddale ko benn bu ci ne matière boppam la maanaam wëpp boppam la ñu topp ko waaye nag faw ñu mën leeral yoon waaw bala ngaa jàngale làkk wi yii ngay mën a xanaa nun mhm. ñi ko mën nag kenn du laaj bu ñuy defal sax semaine nationale de langue alphabétisation ñun duñ bokk. loolu nag jaarul ñoom ci seen biir rek. waaw ah, jaarul de ah jaarul moom moom li faral di wax rek nee naa moom wolof lépp lu ñu koy defal ci réew mi. Mm. yow moom ca bopp ba nga war a nekk. Mm. waaw gis nañ yitte ji nga ko jox gis nañ tam ñu ngi ci defee sa jot def ci say waxtu fi mu ne académie boobu taxawaay bi nga ci am ñëpp gis nañ ko. waaw mm. ah, kon dañuy ñaan rek yàlla yàlla yàggal taxawaay bi. te yéene bi nga ci am yàlla defal la ci lu foox sa njor. ñee la yónni itam maa ngi leen dénk leen moom. li fi li ñu ngi lay yónni na seen xel daal am nga yar bi am nga jotal gi te yàlla dogal na dañu masa xamante te jàmm rek lan seq ma gis la yow it ngay xale bu baax bokk ci am kilifa gu baax mm-hmm. goo xam ne déggal nga ko mu teg la ci yoon mm-hmm. neex nga ma jërëjëf sëñ kon mbokk yi loolu moo nekkoon seen jotaayu Pencum Wolof ñu doon ci dalal professeur Fallou Cissé surtout maam wax dëgg yàlla sant nañ ko bu baax a baax ci jotaay bi ñu ngi yemale foofu jotaay bi di ji leen digg daje ba beneen yoon incha allah.